match euh, officiel la éliminatoire euh, coupe du monde yu fële euh, ci Qatar muy juróom benn match bi groupe bi mën naa wax ni que ñaari joueurs ñoo ci parce que Ballo Touré bi mu doon ñëw dafa ñëwoon ak benn benn béquille mais démb nañ def benn IRM ñu constaté médecin yi constaté que déchirure la donc bokkatul ci groupe de performance bi Sadio Mané comme match Togo bi gis nañ ni que gaañu gaañu bu mu am noonu tamit. empêché na ko pour que suba ma ko ma ko ma mën ko mën naa wax ni yeneen joueurs ñu ngi euh, teew ñu ngi fii donc euh, mu nekk suñu dernier match euh, mu coïncider mu tamit ci retour public bi tamit suñu supporters yi nga xam ne war nañu ñëw nga xam ne namoon nañ leen trop mu nekk match boo xam ne war nañ ko préparé nañ ko bu jouer vraiment pour gagner ko pour que justement que les qualifications yi mën terminer en beauté. Euh, souvent dañuy poser question à l'équipe nationale bi ak Sadio Mané le sans Sadio Mané est-ce que l'équipe doit war na mën a marcher est-ce que war mener mën c'est normal que ñu poser question questions parce que le jour boo xam ne le mën naa que des influencer bu si ci équipe nationale donc du toujours bu toujours bu mais je crois que nous am solo tamit mooy que nous xam que xëy dinaa vraiment ci woon ne Sadio Mané du fi nekk suñu cadre yi comme ñoom Idi yi comme ñoom Kalilou Koulibaly ak ñoom ñoom seen te équipe bi tamit war na war na am taxawaay boo xam ne taxawaay bu wóor la taxawaay bu baax la bu dee bu fekkee sax ni que Sadio Mané newu fi suba comme naa ni que am na yeneen joueurs yoo xam ne war nañu wane seen bopp parce que tamit loolu moo tax ba tey ñuy choisir 23 joueurs Euh, aw ma si benn xel ñaar xam naa ne suba équipe bu ñuy composé incha allah dinañu def seen seen warugar def seen kéem tolluwaay kattan pour euh, gagner match bi mu coïncider tamit si retour suñu suñu supporters yi may may nuyaale waa waa waa douzième gaynde di di nuyu waa Allez Casa di nuyu Sénégal yëpp di ñaan ñëw ñaanal ñu jàppale ñu ci match bi yàlla may ñu ndam ça fait ñëpp di wax ni. Euh, match bi passé si laay si laay wéete samay ans équipe nationale mu doon mbégte bu man mbégte bu mag si man ak fier ak fierté bu mag tamit euh, kontaan naa trop ci à chaque fois nous ñëw di di représenter sama sama équipe nationale de représenter couleur nationale bi euh, te gëm naa ni incha allah rabi nañ ko nañ def ci war pour continuer euh, défendre.